bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na Baye Jili Père Birahim mbokk yi ñu leen di nuyuwaat fii ñu leen di nuyoo euh, di leen nuyu ku ci nekk sa tur ak sant di di leen jaajëfal bu baax a baax a baax ci ànd bu rafet bi nga xamante ni ànd ngeen ko euh, wasaare làmb euh, Père maa ngi nuyu bu baax tey nag ñu fas yéene jàngat làmb comme niñ leen koy waxee euh, niñ koy defee saa su indi leen combat bu mag boo xamante ni bokkoon na ci combat yi ci combat nekkoon combat espoir nekk ñaari xale kii waree Pikine kii waree fi nga xamante ni mooy Géejawaay mu nekk bi mu doon ñaari dër bi boo xamante ni yàgg na ci làmb ndax làmb moom yàgg nañu baaxoo Géejawaay ak pikin kenn ki nekk Ama Balde doon doomi mbër nekk doomu Fallaye Balde euh, muy bëri xale bi nga xamante ni tey euh, mun naa ne askanam kenn du ci mbër waaye bi mu ñëwee ci làmb dugg si ba tey mu ngi marqué ay empreinte jëm ci kaw ba moo ko indi fii mu yegg ci muy guy gi père ma lay nuyu bu baax a baax tey combat boobu laa lay indi. waaw jërëjëf maa ngi wax auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim mm-hmm. rabbi shrah subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa 'allamtanaa innaka anta al-'aliimul hakiim maa ngi nuyu mbokki internet yi seetaan wasaare yëpp nag mhm, mhm. di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal sama bopp mhm. eh, di yàlla yàlla suñu réew mi yàlla ci yàlla def jàmm amiin yaa rabbal eh, jàngoro ji ne ci réew mi lëmbe réew mi xale yi nga xam ne tamit yàlla xiir na leen léegi ci jël ay gaal yi rek mhm. nar a dem ne fekk ñu tekk ji mhm. di lap ci géej gi rek mhm. yàlla yàlla soppi leen seet xalaat ba indi leen lu dàq loolu amiin yàlla dara nga fekk leen fi ñu dëkk euh, di kontaan trop nag gii di ci suñu waxtaan ma ak yow euh, ci tey ci bis bi war a waxtaane li waxtaane combat ñaari combat boobu euh, bu neex la parce que Ama ak Gris comme ni nga ko waxee guy gi Euh, da doon xale boo xam ne bii fooyewul bëri ndaw. Mhm. comme ni ñoom Ama Baldé mbappate noonu. Mhm. mais dafa dugg rek am manin. Mhm. dafa ñëw indiwaale maninam. muy simple bi. waaw manin xam nga manin dafa fort ci doomu aadama. gis nga nit bul ne maninam saa yoo dajeeg moom. bul ne maninam mënuma cee daan da ngay fexe la ko def. su la ko defee su soo juumee ba mu def la ko fexeel ba jàng noo ci rëccee. la. nangu lool. nangu naa nit ma ak maninam. moo ko tax a doon champion. dëgg la parce que boo gisee ñu naan mbër dafa mën a bëri fële mbër moo gis benn for la am wala ñaari for la ci ëpp nag benn for la ci la hmm. naa la fi libal champion yu ne ku ci ne benn for boobu ci nga ci nga tojee hmm. waaw diw nangam nii diw nangam diw rek la de hmm. moom nag for simple boobu jàpp bi nag du simple bi de jàpp bi mooy foram jàpp ñaar loxoom si biir ngeebali mooy jàpp mooy foram waaw mooy foram mu ñëw nag def ci revanche bu rëy parce que naa dajeeg benn mbër bu ñuy wax euh, Mbaye Diouf ñu daje mbokk Mbaye Diouf ne ko yow màgg bëri Mm-hmm. mais bi ma cee ci DSS bi kon dama ko ne màgg bëri gii ngay wax nii bu ngeen ko jàngul di ñu cee toja làmb jëpp mm-hmm. te boobu loolu yàgg na xam nga boobu bëri mbay juf léegi ku ko xool ak léegi ñaata taa la yàgg na nga xam nga def na fi jaloore uh-huh. moo tax may ne li mu mënee ku ko ci jàngul mun ku koo xañ mm-hmm. wallahi taala dina ci jeexal ñu bari dëgg la kon père euh, dañ bi bàyyi nga décortiquer ko wax ma ñaari mbëri euh, bëre bi fi mu commencé ba fi mu jeexee su ko defee ñu dellu waaw ci laa ñëw dama mm-hmm. moom it mm-hmm. dégg bi muy débuté tamit gis naa ne doomi mbër la mm-hmm. parce que papaam seetaan naa ko ci fin carrière parce que bokkuñu carrière seetaan naa ko mais pap bi ma xoolee rek ak talaam rek laa ne xale bi bu fekkee teel naa jël kaala gi takk ko ci digg bañ ko teel a indi ci bopp bi de na ko mm. dégg. Mm. loolu ba ma koy wax xam naa bu seetaan a ne père wax na ma lii ba tàyyi. Mm. moo tax combat bi mu taxawee muy combat bu yellu. loolu laa doon di résumé nag ñu door a ñëw dëgg nag combat bi dem ñu wax suñu xalaat. ay ca kan mooy Ama Baldé. Ama Baldé nekk suñu càmmoñ. cëm dégg nga kële moo nekk suñu. guy mooy guy gi. ay ca mbokk yi. père ay ca sañ Bas ñu dem ci combat bi. ah guy gaa ngay jat mais père lii am na am na am na njariñ ci làmb guy gi nag daa mel ni saa yu ko defee. xelam dal lii gis nga lii. xel supporters yi dal. gis nga lii. Mhm. maanaam lug lug lug la ci moom quoi. maanaam dafa am boo demee gis tey ci amateur yi ñu toog mhm. am na ñoo xam ne sax mën nañoo dagg billet seetaan si ndax lii leen indi. jat bi. xool mhm. jaa xumb kooku mu xumb jaagar jaagar yi waa ko animé tay xumb jooju. dafa am ñoo xam ne loolu rek lañ supporté guy gi loolu rek a neex ñoom. parce que mbër ku nekk ak koy bëggee Mhm. mbër kenn ku nekk lañ ko bëgg parce que Mbaye Guèye maa ngi koy seet passage yàlla na ko yàlla may wér amiin da da nga daan dégg ne man ne Mbaye Guèye bu tuuroo soow tàll fas gi tuus ba pare ñibbi naa mhm. xam nga kooku loolu la ko supporté mhm. kenn ku nekk ne nangam lii la ko seetee ñu ne Moussa Guèye joow bi la ko new ne ñii ne kii tuus mi laa ko jëfee ñii ne xool tëbal bi laa ko jàppee ku nekk dafa am loo ko bëggee woon mais nag loolu moom lu la woon li te daanu mbër de booy. ayca sëñ Bass waaye nag la boo xam ne bi day yokk dara jàpp. est ce que la ah, ah. waaw waaw. ayca ñu dem. waaw. ñu dem ñoom ñaari ñu ngi noonu. waaw. guy gi teg na pied gauche ama teg pied droit. ah mooy foofu moom leçon ba wax naa la li ci nekk. ñëpp jàng nañu waaw loolu moom dootuñu ci dellu parce que répétition lay doon. wax nañ ko ba tàyyi ki teg pied gauche ak pied droit. lu leer dégg nga wax naan leeral nañ ko ba li ci nekk. Mhm. léegi nag ñu dem. Mhm. waaw dem. kii téye na loxoom téye téyante nañu loxo. Uh-huh. waaw Ama Baldé téye na loxo bi ne tekk aj ba leen tek mais gis nga téye bi fii euh, gis nga xam nga fekku na mu dem kon bu fekkoo mu demul rek. Hmm. kon xamoon nga ne guy geeku téye woon. waaw père demal ne tuuti demal ne tuuti. voilà père. léegi waaw delloo delloo delloo. sëñ Bas dellul ma ci làmb tuuti. delloo sëñ Bas. waaw waaw. Hmm. léegi fii guy gi moo fii nag Ama Baldé téye delloo delloo delloo. delloo ci téye ci téye bi damay ñëw ci téye bi. téye bi. na dem. téye waaw. gis nga téye téye bi. waaw. mbër mu nekk war nañ moytu ñu di ko téye. bu téye di am. Mhm. yow fexeel yow nga yaa war di téye. waaye kenn waru laa téye. waaye ko la wala ku la téye nga téye ko. Mhm. ne boo ma téye dama lay téye. Mhm. yaa ngi dégg wala. mais nit ki téye la nga téye ko mu bàyyi la ci sa loxo. danger bu rëy la ci mbër. yéen ñi sitaan mbër muy bëri. bul nangu ko bu téye di am fexeel nga yow yaay téye mais nga bàyyi nit ki téye la loolu danger la. te loolu naa la ci woon benn affaire. Mhm. waaw loolu de loolu loolu tey mbër ñàkk na ci ba tey loolu ko def. ay demal ñu dem. xam nga mu ngi féqu ni féqu féqu nii. nga kon xam nga ne kon moom ma ah, guy gi ko téye woon. Uh-huh. kon leer na. Uh-huh. ñu dem. Uh-huh. ay ca ñu dem. gis nga. gis nga ña ngay ah, leewaatoo ñu ngi leewaatoo mu ngay attaqué. Ama Baldé daañu koy dem mu daw. waaw Ama cokkaas na. ah cokkaas. waaw. ñu dem. ñu romb ba waaw. voilà moment moment bii nag dafa mel ni jàpp am na per voilà jàpp nañu mais xam nga. xam nga fii téel moon la xam nga fii. ay ca guy gi bal na loxoom ci biir nii. waaw de xam nga loxoom bi dugg na. Hmm. xam nga gauche bi dugg na. Hmm. mais mais droite bi duggul. duggul waaye moom lay jéem a parce que loolu mooy forum. Hmm. fexe ba mais gauche mais droite ñaar loxoom nekk ci biir. mu jàpp loolu fooru mbër la. mais bu génne woon ñaar loxoom ci biti loolu danger la ci moom. mais heureusement dugal na benn loxo bi mu ngi jéem a dugal bii. Ah. Ama Baldé tamit mu ngi jéem a bañ day bañ dégg nga pour xam ne ne guy gi fooram lépp mooy mu jàpp geñoom hmm. parce que jaaroon nañ fa hmm. léegi day bañ ñu jaaraat fa hmm. day bañ ñu jaaraat fa moo tax moom it mu nga rasu te gàmmal fexe ba jéem a génn waaye nag fii Ama Baldé erreur bi mu def moo dafa waroon fexe loxom bii bañ a dugg loxom bi ci biti waa loxom bii génn nii day fexe parce que guy gi fi mu ne mu ngi wut ñaari loxom nu mu jàpp ci biir parce que jàpp bi mooy fooram kon léegi man lan laay def man damay fexe ba ñaari loxom loxom bii mu dugal lay génne bien nag moom dinaa bàyyi xel ba du dugg mhm. waaye bi jot dugg naa fexe na mu génne mhm. waaw loolu moom moo doon mooy xam-xam bi ah, te mbër per per mbër daa mel ni saa yooyu bëreeg moom rek loxo bi moom avantage bi mooy na dugg ci biir na dugg ci biir rek loolu kay dama la ne ay ca loolu kay mooy avantage bi ci biir mhm. gis nga fii xoolal xam nga fii xool teel teel teel xam nga fii xoolal kii loxo ma ngi ci biir waaw xam nga baamale xool loxo ni mu génnee ne le waaw mais guy gi fii mu jàpp ni léegi day fexe ba le saxal mais bi mu ko saxee waa ji dafay rasu day rasu rek Mhm. da maanaam rasu bi mooy mooy day day bañ mu ñaari loxoom jàpp. dëgg la parce que ñaari loxoom bu jàppee ba suba. su daanu mhm. doo ko daal. Mhm. guy ñaari loxoom bu saxee sa bu suba boo jàppul boo jàppee bu daanu doo daal ci ànd. déedéet parce que loolu forum la. waaw ñu dem. ayca. waaw. gis nga ba tey ñoom ñaare ngay jàppoo. waaw mu ngi téye parce que léegi léegi Ama Baldé gis nga Ama Baldé gis nga fi téye xool. delloo delloo voilà delloo ah. ñëwal. Ah. demal nag. demal gis nga fii. Ah. Ama Baldé téye bi mu téye nii. waaw ah. léegi xamoo ne ci loolu tànk da ko bëgg teg ci droite bi. Ah. pour wiite ko pour jéem koo tegal seize. maanaam jéem koo xar pour sukkar bi ko. waaw loolu lay wut. waaw gisoo mu sukkee. waaw pour xar xar ki nga xamante ne. loolu lay wut loolu lay boo gisee mu saxal loxo bi téye loxo bi dugal nii. Hmm. loxo bi dugg ci biir bi boo gisee mu déplacé bipp nii pour mu ñëw. Hmm. pour mu mën koo tegal seize xar ko delloosi ko loolu lañ loolu la ñuy xale yi di wax tegal seize mais loolu mu ngi tudd ci wolof sukkar bi. sukkar bi waaw sukkar bi la tudd. ayca ñu dem. ñu dem. waaw ba tey jàpp na. waaw ba tey day bañ. parce que waaw guy gi gis na li mu ko daral hmm. gis ne ko sukkar bi boobu lay wut égassé boobu lay wut. Hmm. moo tax guy da koy bañ. te loxo benn seen guy gi moom li muy fexe fii doon pàddul wéyelewul naajalewul xam nga lu muy fexe. Hmm. na fexe ba ñaar loxoom jàpp rek. waaw parce que moom benn loxo bi fi mu jàpp guy gi daa ŋànk ne. du bàyyi daa jàpp du du bàyyi parce que beneen loxo bi moom la jàpp. xoolal benn sax na ba daa téye ci loxo bi. xam nga hmm. benn bi sax na ba pare. mais hmm. fexe duraat bëri dugal ak mooy yor. parce que hmm. bëreem du neex mukk ci bëreem bi te te bëreem bi duggul. bu bëreem bi duggee rek bëreem neex na. mais Ama Baldé nag la koy xañ. daf koy xañ par beneen bi dugg gis nga nag dafa mel ni ñaari ngemb yi fi mu toll ni guy gi am na ñaari ngemb. waa am na ñaari ngemb. mais ba tey gis nga loxo bi waa gis nga voilà. mais xam nga tax mu am ba mu amee ñaari ngemb. waa gis nga Ama Baldé dafa génne boppam ca kaw suuf. aj ko aj aj boppam ca kaw voilà gis nga gis nga voilà gis nga guy ah. gi ni mu bëtt ah. bi yëpp pour bëgg a waa ji si ma gën a sigi pour mu mën koo simpi moom la wut dugal boobu nag hmm. moom la bu kii tàllalee loxoom doog si ba suba hmm. Ama Baldé hmm. bu ne bëgër yee dotti nii bu tàllalee loxoom doog si ba suba ay ca ñu waatal ñu dem ñu ngi lewaatoo dagg ah. nañ fi mu toll nii ñu ngi lewaatoo Ama daw na jël tànk. waaw waaw teel ma foofu sëñ Ba. waaw teel père euh, Ama Baldé lu tax mu jël tànk guy gi. waaw euh, tànk bi rëccaat ko. arrièreal ma combat bi tuuti. tuuti rek. waaw bàyyi mu dem. bàyyi parce que Ama ni mu jëlee tànk bi baax na trop. de père waaw ay ca ñu dem. jël na tànk voilà. xam nga jël na tànk bi. waaw mais Ama Baldé xam nga pied droit jël. na dem <laughs> na dem tuuti ba tànk bi tuuti waaw voilà nga fii li tax di jël na tànk bi mais wañ bi mën na koo jubu mën na ko bañ a mm-hmm. bu fekkoon ne jubu na ko jàpp bi mm-hmm. du rëcc mais su ko jubuwul aaj effort bu mu def day rëcc mm-hmm. parce que léeg-léeg nga jël tànk jël xam ne nii ñi toog di seetaan pour yow jekk nga ñi seetaan pour yow jekk nga jekk nga dañ naan da nga naan jekk ni yow ñi seetaan ñoo la yaakaar jekk waaye yow jekkuloo waaw parce que ni nga ko téye mënoo ko sukkar bi mënoo koo bët léegi foofu effort bu mu ah. def day rëcc ñu dem. ayca ñu dem. ayca ñu ngi dem. waaw ñu dem fii te pour jëm ñëpp kenn ku ne yaa ngi fexeel sa morom rek. Mhm. waaw kenn ku laa gis nga. wala bëtt na. waaw gis nga bëtt bi yëpp mu gis nga. ayca jéem a bëtt muy rasu. Mhm. fi mu ne ko kenn ku ne yaa ngi créer sa morom rek. sëñ Bass teel ma foofu. voilà nag fii xam fii nag fii nag wax nii. Mhm. gis nga loxo bi dem ci ndigg li nekk fii nii. ak ni mu croché nii gisee guy gi bu doon mboot kat. tey la. gi nga wet gi mu tafu nii day déplacer en pas tànk du laal tànk bi tànk bi lay arrière rek bi ñëw bu voyage bu déplacé rek lay day dugg enchaînement fii ne enchaînement bi lay dugg ci biir tëgg mboot téye triceps ba kaw loxo bële triceps bi lay téye ci tëgg mboot mën na fa am mbootu ah. jëlal wala mbootu deux pieds sa hmm, hmm. dépend ci tànk yi ni mu taxawee rek ah. waaw fii fii géej googu yi amoon na fi lu rëy ci crochet bi waaw mais Ama Baldé tamit amoon na tamit gis nga crochet bi loxoom bii mu wàcce ko fii ah, moom amoon na te loxoom bi wàcce ko fii mais gauche bi waaye mais droite bi wàcce ko suuf droite bi ñëw jàpp séew ba ci suuf moo li tànk bi moom it amoon na loolu fii. noonu la demee ay ca ñu ah, dem ñu dem moom it amoon na loolu foofu. foofu moom daa mel ni wet mu ngi waaj a am. waaw waaw waaw ah, gis nga. gis bi gis nga ah. sukkar bi ne ko waaw. Oh. delluwaatal mu tuuti sëñ Bas. Père xoolal fii. waaw Ama Baldé fi mu jëlee guy fi mu taxaw nii. gis nga fii position bi gis nga position bi mu taxawee nii. dama ne xam nga tax may la fii loxoom bi mu duggee nii su ko neexoon wàcce fii tëgale waaye guy gi fii tey tey. bu hmm. amee tànne mënoon naa waa ji mu tëgg mboot fii parce que bu doon mboot kat laa wax. Ah. te côté bi jubu na ko. Ah. bu ko Ama Baldé forcé ko tëgg mboot waaye gis nga ni mu ko ŋoomoo ba jéggi ko ŋoomu ko ba jég ko. bu ko tegalee rek de maanaam genre tegal seet sukkar bi day ñëw sukkar bi kaw la nag. Mm-hmm. parce que dafa am sukkar bi suuf am sukkar bi kaw. Mm-hmm. bii sukkar bi kaw bi loolu la ko def. léegi nag man li ma jaaxal mooy. gis nga ah. Ama Baldé fi mu taxaw nii. Mm-hmm. Euh, fa la ko guy gi di daaneel que bi mu yëkkati. guy gi guy gi da bi. waaw xam nga xam nga tam bàyyi ko ah. parce que ni mu ko ŋoobooloo da koo dajale. da koo dajale ba mu naru ko taf ko rek ànd ak moom rek xattar bi ko fi mu da ko waaye fii nag tey guy gi bu doon rasukat nag. fi mu fee daanu. Ama Balde. waaw kii de ama guy Ama Balde. waaw gis nga tamane gis nga kii laa jël nii xam nga guy gi la jël fii. waaw guy gi tamane fii. Eh, nga ngoobu bi waru fi daanu. Hmm. waaw ñu dem. ayca ñu dem ñu dem xoolal. waaw gis nga gis Balde. daan ko jël boo. xamante ne keroog Euh, képp ku nekk ci làmb ji gis nga ni guy gi wane na xarañteef ci bëre bi. parce que xam waral wane na ci technique ak bëgg ba daan làmb waaw parce que xam nga mhm. parce que moom dafa ñëw dégg nga làmb ji indi na condition. Uh-huh. indi na physique mais uh-huh. bëre bi mu indi. tey kii da ko bëggoon forcer Ama Baldé da ko bëggoon forcer rek. Hmm. pour nu mu ko mën a forcer pour daan ko complètement wan ko ne maa la dàq bëri daal. Ah. ko combat bu boppam. te alors que ñoom ñaar ñoo waroon séddoo làmb ji. dafa bàyyi bëri bi dafa yëpp nag féetewoo ko dem ba hmm. dafa dem ba xoolal condition bi jeex complètement hmm. moo tax gis nga ni ñu ko jëlee ak ni mu dellu si. boobu def noonu. def rotation day ànd ak tànk. maanaam su ma jëlee su fekkee damaa jël. jëm nii tànk bii laay yóbbu pare doon indi bii. Mhm. mais su fekkee damaa jëm nii du def nii. soo defee daanu nga da ngay daanu. Mhm. moo tax déplacement dañ koy jàngal nit. dañ koy jàng gis nga jël naa waa ji taf ne taf ko yëkkati ko coppet ba mu jóg. Mhm. dégg nga du du ma laal tànk bii parce boo laal tànk bii nii rek daanu ko. gis nga xoolal fii xoolal su ma naa nii rek gis nga daanu naa presque. fii ne boobu ma mooy daanu. mais bu fekkee damaa jógee nii tànk bi laa jël bii ngay déplacé gis nga bu fekkee dama la bëgg a fii xool fi ma jógee nii gis nga xool fi ma jógee fii xool li ma indi fii xool ni mu yombee. Mm-hmm. niroowul jël bi bëgg laa indi fi ba pare jël tànk bi indi. dëgg la loolu dañ koy jàngale ñi seetaan boo xoolee ñi jàng mar arts martiaux yëg ñi jàngale judo ñi jàngale yëpp donc déplacement dafa am ci yoon. Mm-hmm. déplace ñàkk déplacement moo tax ñu daan ko ci combat mu doon combat boo ah. xamante ni mbokk yi yéen a ko gisandoo. Ah. noonu lañ leen indiloon tey ci mm-hmm. jàngat làmb bàyyi ji li Père Birahim père ma lay jaajëfal bu baax a baax. waaw jërëjëf di sant yàlla di gërëm ñëpp. Hmm. Eh, di gërëm suñu xarit ba rek ndam Birame Ndaw Ndoye. léegi la ma doon woo téléphone Ndaw Ndoye. waaw ak ak euh, Soxnaam. ak Soxnaam. Hmm. Ah, di gërëm tamit euh, ñoom Mbodj. Mbodj Sonatel Fallou Mbodj Fallou. sëñ Fallou di nuyu ñëpp. Hmm, ah. association ah, SARS. association des sages des sages. waaw yokkal yokkal Papa ñoom ñëpp. Ah, ah, waaw mu teg la nuyoo bi ci loxo mu nuyoo ma ñoom Mansour Diop dégg ñoom Serigne Kane ñoom Boy Sey. ñoom Malal Ndiaye xale yooyu mbër yooyu yëpp. wax dëgg yàlla wasaare lamb la ñu bokk. dëgg la parce que toujours moo di ko wax ci mbénal bi. Mm. naan daal Birahim Ndiaye borom wasaare day leen dugg ci wasaare bi. dëgg la waaw den du ko wasaare ñoom di ko wax kon maa ngi leen yokk lépp amiin yàlla waaw di gërëm ñëpp di sant ñëpp uh-huh. waaw di nuyu Pape Mayel Diop maa ngi nuyu ziar ko sant uh-huh. ko uh-huh. a baax dëgg la ah, defa la dëgg kon nag jërëjëf yàlla muy suñu mujj daje daal amiin yaa rabbal aalamiin waaw yi kon ba ëllëg insha ci beneen jàngat lamb jërë laa ñaari yoon war boo jaar booba laa mëne foo jaar fafanaa mëne dama mën ci bii boor mën ca bee boor mën ci ak ci boor bàyyi fàtt njaay nu roowu maag ñoom cuuna rëy ma waa na roy maa ko baaxi ñii ma yor